waaw maa ngi sant maa ngi fay. ñu ñëw Touba Wakaam dégg fi xew-xew bi am mu nekk xew-xew bu doy waar mbirum Ibrahima Faye yow ñu fekk la ci gox bi est-ce que yëg nga xew-xew boobu. si xew-xew bi yëg naa ko bu baax. na ko yëgee. Eh, en fait eh, man man ak moom mën naa ñoo nekk mooy jour bi gaañu sax beneen saa ñoo nekk par la suite dafa jógee gaale dem si maanaam si foog des si koñ bi day nekk tout le temps des fois comprendre dama tëdd bàyyi 3 heures matin sa benn copain ma woo moo woowee tax mu ne ma booy de ah say ñi daay dañ ko jam paaka fii ma ne fan mu dañ ko jam si arrêt car ma ne ko lay wax ne si troisième ma ne si saa si laa jóg dem foofu noonu mu fekk mu tëdd mu fekk gars yi ko trois trois jam lañ ko jam fii lañ ko jam non ciseau lañ ko jam fii lañ fii lañ ko jam ak côté bi si fële si côté phare bi lañ ko jam après si saa si yàggum noonu si lañ woo waa policiers yi ñëw mais policiers itam balaa balaa ñëw yàgg nañ nañ def ay 30 minutes 40 minutes doo ñëw. mi papa dafay ñëw yàggul noonu la après xam nga waa kii sabot tamit ñëw bu sapeur ñëwee après si lañ ko xool xool ñu xool ko après si lañ ko jël yóbbu ko hôpital quoi waaw. donc bi nga ñëwee nga tiim ko muy nekkoon koo xamante ne xamante ngeen xame ngeen nga fekk ñu jam ko jam jamit boobu noo ko gisee. non vraiment bu ma ko gisee nag boo bëggee dégg-dégg sama adduna dafa tuub carrément quoi parce que dama xam ne nit sa borom nit noo ko mënee tiim benn instant di ko jam ay paak di ko jam ay ay vraiment non métti na trop. métti na trop vraiment parce que da nga nekk dañoo nekk góor rek mais yàlla xam na ne métti na trop trop sax si katam jaaxaan sax. loolu muy doog am fii seen gox bi Touba Ouakam. non fan yii passé amoon na gox bi muy doon am fii nii moom mais ñu ne fan yii passé côté Bërëm côté Cité Avion foofu noonu quoi mais fii comme koñ bi fii nii lii muy doon am fii nii moom waaw pour la muy doon am si koñ bi fii. ki ko jam xamante ngeen wala ku doon dem la rek wala nu mu demee. non booy bu booy ko jam mën naa ne si koñ beneen koñ la dëkk côté cité avenue dëkk fële mais koñ bi booy bi waajur ma xam nañ ko mais man non seulement xaw ma mais yeneen booy ñi koy fréquenté booy xam booy bi xam nañ booy bi moom sincèrement waaw. booy bi gisaatu leen ko boobu ba léegi. non boobu ba léegi parce booy su suba si moom moom dafa yaakaarante wul comprendre nga léegi dafa ñëw suba si noonu si côté areka bi di jéem a xool déglu ay information ndax vraiment dee na wala deewul par la suite bu mu dégg carrément dee rek xam nga si la si la daw quoi waaw. kon si saa see fi ñu ko jamee fa ñàkkee ba kenn. waaw non fu ñu ko jamee dafa dox dafa daw ba si côté areka bi si la daanu parce que fi ko jamee fu fu mu kii fu mu dee du benn waa dafa dox daal si la kii si la daanu bi noonu mu nekk lu métti ñu ngi lay masawu ndax nijaay la woon si yow. waaw nijaay la woon si yow ku sës si man man naa ñooy fanaan tout le temps nijaay ku sës si ñoo fanaan moom tout le ñooy fanaan parce que fi vidéo vidéo vidéo mu njëkk a defar moom sax muy si lendemain bi kii tuul sax comme ça comme comme suba la ko doon gaañ tey laa ñëw si sama nekk ñi doon def benn vidéo ba ma koy ne demal wattu billaay si ëllëg si laa dégg ñu ne baal ma rey nañ ko Thiam. ñu la koy jaal bu baax. amiin waaw amiin naa ñu ngi ci. voilà Pape bu ko defee dañuy xuus dugg kër gi xool ñi nga xam ne ñoom la bokkal ndax nee nañu fii nga xamante ni fi la dëkk moom Ibrahima Faye moom fi la xew-xew amee mu nekk lu métti lool ma chérie maa ngi lay maa lay fay. tur bi nan la. man Maymuna laa tudd. may xew-xew bi dal fii nga xamante ni fi la ñuy ñëw muy ko ñoom Ibrahima fay yow lan nga si moom. Euh, Ibrahima sama rakk yaay la waaw sama ndijaay la. noo yëgee xew-xew bi dal si kawam man de damaa tëdd di nelaw ba ay 3 heures du matin sama mag bu góor bi woo ma ma mu ne ma dañoo dañoo jëm Ibrahima ci arrêt bi te Ibrahima dee na loolu de laa si am. ñu woo la ne la Ibrahima jam nañ ko ñàkk na ba bakkanam gis nga ko fi mu tëddoon wala. waa bi ma demee après damaa yeewu ma yee sama ñum yaay après bi ma demee ci arrêt bi gis naa ko mais mënu ma ko woon xool. léegi sama benn copine bu taxawoon foofu noonu moom moo dem seen kër indi benn dara ñu muur ko ko. kon fi ñu ko jamee fi la ñàkk bakkanam si saa la ñàkk parce que trois jam lañ ko jam. nekk lu métti insécurité bi dafa commencé di am fii au niveau de Touba Wakaam. waaw Touba Wakaam cité avion instant yi agresseurs yi nañ fi torop torop torop sax ko jam agresseur la wala si koñ bi la dëkk. ah ci koñ bi daal lay fréquenté. waaw si koñ bi lay fréquente parce que xam nañ ay ay parents xam nañ leen bu baax. mu nekk lu metti ñu la koy massaw waaw soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si noo def. ñu ñëw seen kër fekk fi xew-xew bu doy waat bi nga xam ne moo fi am barki démb yow lan nga si Ibrahima mi fi jóge Ibrahima Faye suñu ñaari yaay yi ñoo bokk ndey ak baay. noo yëgee xew-xew bi daal seen kaw. ah ñu koy xew-xew bi dañu bett parce que man day faral di ñëw sama place lu bari bi may mujjee wax ak moom ay minuit une heure ñu ñëw naa ma sista jox ma ma jënd reer ma ne ko wàcc naa xaam jox la nga jënd ma jox ko mu dem jëndi reer may wàcc fekk ko mu taxaw si tali bi ma ne ko yow ñi béegoo ba léegi yaa ngi taxaw fii nii mu ne ma yow laa doon xaar soo ñëwee rek ma ñibbi ma ne ko kon nañ dem mu ne ma demal maa ngi toog sa ginnaaw ñu ñëw ba ci angle bi moom mu jàdd pour jubal si fii man ma continuer dem sama néeg tëdd sama ñëw sangu rek tëdd tuuti yàggul ay 3 heures sama rakk bi ak sama doomu mag bi ñëw di fëgg sama palanteer ma ne leen yéen lan moo xew heure bi ñu ne ma tijj man leen wax leen ma lu xew ñu ne ma Ibrahima lañ rey si kaw tali bi ma ne Ibrahima lan la war a def bañ koy rey si kaw tali bi ndax man chaque jour bu may wàcc su ma ko fekkee ci mbedd bi ma koy jiital ba mu ñëw tëdd si ma doog a waññeeku dem sama néeg heure ma ko fekkee ci tali bi ko demal tëddi menacé ko mu dem mais ki def lii def na lu ñaaw parce que rey na jàmbur boo xamante ne nii xamul lu dul jàmm ak salaam du xoloo du xeex boo meree sax boo ñëwee bu ñëwee yow da ngay noob da ngay reetaan parce que day ñëw di la defal ay comédie yoo xamante ne doo comprendre journée boobu ñëw na sama place ñetti yoon mais su ñëwee di wax ak man sax damay foog ne daf may dóor wala leneen ma naan ko bàyyi soo buggee dara di ma dóor mu naa ma yow dangaa baax dañ ma la dénk sama si rakk nga mais lu ma bëgg su ma ñëwee su ma la laajee danga may jox ma ne ko ñoo ko bokk parce que sama mag nga mais man affaire yi daf maa bett torop ngay mujjee ko gis bi ngay wàcc dem ñibbi quelques minutes après lañ la woo ne la gaañu. waaw parce que man moom bi may mujjee gisanteeg moom ay une heure moins parce que chaque jour sama place lay mujjee. chaque guddi minuit day ñëw ma jox ko café wala ma may ko beñe jox ko xaalis mu dem chaque jour moo tax ñu bëri dañ may oo naa ma ni du Ibrahima moo gaañ Ibrahima koo wax mu ne la Ibrahima démb ñëw na sama place koo wax mu ne la Ibou fii la jógee am na maire boo xamante ne nii chaque jour day dem si place di ko baleel di ko foofu di ree mais doo comprendre parce que ki ko def lii moom def na lu metti suñu mag la mais xamul dara France la nekkoon mu feebar ñëw fii ñu war ko defaral loolu moo ko fi indi woon looloo tax ba lii am si xamul dara ñaata at def def na fa 17 ans 17 ans la fa def am soxna ak njaboot waaw am na jabar tubaab ak benn doom bu góor ñoom ñi ngi ñëw sax xam naa dañoo génn ci lañ nekkoon mu nekk lu metti insécurité bi dafay dellu siwaat ki ko rey da ko agressé walla nan lañ def ba loolu am. Ah, ki ko rey moom nee nañ da ko agressé parce que ñun fekkee wuñ ko yàlla rek moo xam li ñuy jotee mais loo xamante ne nii moom day tooñ du moom du tooñ suwaat nga ñëw fekk dara si moom bugg ko jël wala leneen ndax moom du tooñ. ndax ki ko ki ko rey àndul ak sagoom bi mu koy rey loolu moo tax ñoo lay masawu waaw ah, ñoo ko bokk. voilà Pape ñu daal di xuus dugg ba tey ci kër gi mu nekk xew-xew bu doy waar. soxna si ñu ngi lay nuyu di la massaw liñ bokk. waaw ñu ngi lay fay di leen remercier seen déplacement bi ngeen def ni mu doon lu rëy si ñun ngeen xool li askan bi bëgg ngeen koy def ñu ngi leen di ñaanal yàlla. xew-xew bu metti dal seen kaw muy seen doom jooju seen rakk seen xarit bi ngeen ñàkk ma Ibrahima Faye noo yëgee xew-xew bi. waaw Ibrahima de ñun dañoo tëdd di nelaw ñu yee ñu ay 3 heures du matin fëgg bunt bi fëgg bu metti sax ñu daal di jub yeewu noonu daal lañ si am na rey nañ Ibrahima loolu daal lañ si am rey ko daal lañ si am si la ñu fii nag dem si arrêt bi fii. di fekk mu tëdd noonu loolu daal lañ si am léegi nag euh, bi loolu amee tamit jot naa dégganteex euh, papam kii nga xam ne moom moo rey xale bi jot naa dégganteex papam léegi papam moom nee na yoon def liggéeyam papam parce que nee na bu soñoon doomam du rey kenn ak ki nga xam ne moom moo rey Ibrahima kooku déggante nga ak papam xam ngeen waaw ki xam ne moom moo rey Ibrahima fay déggante naa papam léegi papa moom nee na na yoon def liggéeyam na yoon di def liggéeyam bi ma déggantee papam na papam métti du na ko lool dëgg yàlla waaye bakkan dafa foor yaayam aussi tamit woo naa ko téléphone yaayam wuyu na ma ma ne ko mën la diw mu ko téléphone am ñu koy insisté di ko oo nangalu jëlaat appel waaw loolu daal lañ si am. moom xale bu góor bi nga xam moo rey Ibrahima fi la dëkk wala da doon ñëw rek. non fi la juddoo fii la yaroo. fi la juddoo fi la yoro Touba Wakaam gii la juddoo Touba Wakaam gii la juddoo fi la yoroo fi la màggee waaw. ñoom ñaar ay xarit la woon dañu loon ànd wala. non après xam nga par la suite xamaatuma ko parce que xamuñu woon ne ñoom ñaar sax xamante ñu parce que Ibrahima mii ñu rey ni moom France la nekkoon moom kii àddunaam bi yëpp presque France la nekkoon waaw mais dafa ñibbi dafa ñëwoon fii ñibbise woon fii nekk fi mais comme fii koñ bi ñëpp xam nañ ko. fii mu nekk ni xëy peut-être moom mi ko rey xam naa da koo xamul mais moom mi ñu rey nii presque secteur bu mu nekk ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ko dëgg yàlla. yéen xam leen seen condition la ko war a reyee koo xamante ne xamantewu leen ngeen dëkk rek xamu leen yéen seen la ko war a reyee. ah dañ ne ciseau la ko jam daal dañ ne ciseau la ko jam te am na ku gis ciseau bi sax ba jot ko yóbbu gendarmerie waaw ñun loolu moom am nañ ko si moom ciseau daal la ko jam ciseau jam ko si loos bi jam ko si biir bi ñetti jam-jam loolu daal la ko jamee. bi nga fekk ko mu tëdd nga tiim ko muy sa deret nga gis deret ji di wal comme ni ñu koy waxee ban yëg-yëg nga am ci sa xol. Ah, mu metti lool nag metti torop torop torop torop torop metti na lool wax dëgg yàlla ni ñu ko yëgee metti nañu parce que nga gis sa deret moos ñu tëral ko nii ñu jam ko nii ku nekk di gis ni ko jamee loolu dafa metti metti na torop waa jam-jam bi moom dafa sori waaw jam-jam bi moom sori na metti na lool wax dëgg yàlla mais ñu ngi lancé tamit appel Euh, waa Wakaam nañuy def fort délégation def mobilisation parce que fii Wakaam li fi am léegi mi ngi bëgg ëpp loo xam ne mësul woon am Wakaam moom moo am Wakaam mu doon si piste ba cité avion loo xam ne ay agression kese kese kese moo fi ne boo waree xëy di liggéey sax pour nga génn fi sax tout à fait problème pour nga génn dem liggéey fajar kenn ñemewut a dox fajar ndax lan banditisme bu bëri fii loo xam ne mësul am Touba Wakaam mi ngi fi ñu ngi interpellé euh, général Moussa Fall di remercier brigade gendarmerie Wakaam ñoom tam def nañ maximum def nañ lu ñu mën a def ñoom ñu ngi patrie guddi nelawatuñu nelawatuñu guddi nelawatuñu bëccëg gendarmerie Wakaam moom mention spéciale parce que ñu ngi def seen liggéey ñu ngi def seen liggéey nelawuñu guddi nelawuñu bëccëg ñu ngi wax Moussa Fall moom mi nga xam ne moo nekk général gendarmerie na yokk sécurité Wakaam Wakaam moom seen seen liggéey dafa metti dafa metti parce que boo xoolee ñoom guddi duñu nelaw duñu nelaw guddi duñu nelaw bëccëg ndax ñu ngi patrouille guddi du xool guddi di xool bëccëg moom mi nga xam ne mooy nekk euh, Moussa Fall moo nekk général bi na yokk sécurité wakaam loolu daal lañ koy ñaan wakaam rey bi nag dafa doy te dafa ëpp te lu ëpp nag tuuru na waaw. ñu lay massa baax a baax. waaw ñu ngi leen di ñaanal aussi seen liggéey bi tamit yàlla na am barke parce que nit kuy am naqar ngeen def déplacement ñëw ba si këram. ñëw di ko mettitlu kon tam ñu ngi leen di ñaanal yàlla aussi yéen tam na yàlla barke la seen liggéey si barke yonent bu tedd bi. xew ñu ngi toog ak kenn koo xam ne jarbaat la si Ibrahima euh, ñu ngi leen nuyu sëñ bi. waaw ñu lay fay soxna si. xew-xew bi dal sa kaw ndijaay. waaw ñun xew-xew bi bon ñu ngi ko yëg vers 3 heures du matin waaw fi lañ toog daal dallu noonu si la ñuy woowee ñëw fëgg fii ay booy yoo xam ne fekkee nañ action bi ñoo ñëw fëgg si kër gi quoi vers 3 heures du matin wax ñu ko. après si lañ jógee ñëw foofu fekk dee na quoi waaw. nga ñëw tiim sa nijaay gis ne dañ ko jam ban yëg-yëg nga am. waaw instant boobu maanaam xool naa ko mais nu laa ko xool naa ko mënu ma ko xool ak deret bi affaire yu ko soog soog waaw deret dafa bëri woon quoi après si laa wëlbatiku noonu dem taxaw ne le après je suis sapeur ñëw ak gendarmerie ñëw kii ko quoi. ñu def constat bi ñëw daal di gàddu néew bi daal di yóbbu. waaw ñëw def constat bi yëpp jël néew bi après yóbbu waaw. après na moom wax dëgg yàlla metti na rey bu ñaaw lañ ko rey waaw yaram bi yëpp ay jam-jam la te ciseau la ko booy bi jamee ko après ñu ñoo topp toq toq deret bi quoi trace bi ba gis ciseau bi waaw après si leen jël ciseau bi nag yóbbu ko gendarmerie. mu nekk loo xamante ne lu métti loolu la parce que maa ngi forcé wu béy ne ki ko jam bi mu koy jam lu sidul parce que yaakaar naa yenn yi ku lu si doo tiim nit di ko jam parce que booy bi man booy bi daf ma bett man bu ma gisee ne xamee na moom la man affaire bi daf ma touché daf ma bett waaw lu si lu moom boobu dafa geesoon quoi waaw donc yow xam nga booy bi waaw xam naa ko bu baax xam naa ko bu baax wagaam ji la dëkk nga nekk jeune gis yooyu muy faral di am instant bi yu gën a bari est-ce que du ngeen dem ba ragal yéen tamit. si instant bi moom ñun moom nekkuñu à sécurité surtout wakaam sax laay wax waaw moom instant sécurité zéro amu fi waaw. ñaan rek kuñ ci mën a dimbali pour ñu teel a jàpp booy bi parce que instant booy bi dafa daw waaw dafa daw. waaw waaw instant moom ñu ngi koy wër fu ne partagé nañ photo ma lépp fu nekk. waaw. ñu ngi leen di masawu bu baax a baax. jaajëf bi ñu ngi leen nuyu. maa ngi sant yaa booy. maa ngi leen di masawu bu baax a baax. waaw waaw nekk leen si jàmm rek. waaw noo yëgee xew-xew bi dal si seen kaw. waaw man xew-xew bi mi ma fekk côté El maa ngi toog sama ñaari xarit am sama benn boy bi ñëw foofu ne ba def nañ ko crime mu ne ma sax. jug leen ñu dem loolu moo ma jëlee fi ma toogee woon te xaw ma ne woon Ibrahima sax lañ def ci réew Ibrahima man ak moom bi ñuy ànd man depuis xale la mbay fay sama nijaay la buñ masaan di parcelle bi mu daan tëgg sabar sama nijaay daf may def daf may jox benn percu bi naan kii euh, mbëng-mbëng bu ko defee ndeysaan xoolal dama si nekk nii ba mu kii ma nii bu ma defee appel rek ma ànd ak moom avant muy dem France ñun moo ñu jàngal bàkk mu ne leen mu ne ñu bu yeboo ngeen jéem ko xam tap tap parce que man damay dem sama yoon boobu gisagul sax jabaru nasaraanam barki seexul xadim gisagu ko si diggante boobu après la dajeeg nasaraan bi mu doon soxnaam muy yaay Ismaïla ñu naan ko flow waaw man histoire am man dama ko xam parce que man bu ma demee bay woy man su ma demee bay woy Ibrahima la su ma demee ba xam temps wu musique Ibrahima la quoi. nga yëg ne rey nañ ko si anam bu ñaaw boobu ban yëg-yëg nga am sa xol ñu tëjee foofu. dama dof ñaari fan jour jour biñ ko faatee noonu bi ma demee ba xam ne moom la lal tëdduma ci quoi. giñ naa ko si darajey sëñ Baara Mbacke lal te duma si sëñ Mame mbay Mbacke toog nañ fii si néeg bi mu ñu koy wax ndekete lii la woon quoi. jërëjëf ñu ngi lay masawu baax a baax di la jaale. yéen tamit maa leen di masawu di leen jaale yéen tamit ko waaw man xam naa ne moom nitu àjjana la waaw. waaw voilà ñu ngi ni toog ak ki nga xam ne waajur la ci Ibrahima Faye ñu koy masawu baax a baax yaay booy ñu ngi lay nuyu. waaye maa ngi leen di fay. ñu ngi lay masawu di la wax nan nga yëgee xew-xew bi dal seen kaw. ah ñun dañ toog ba quatre heures de matin ñu woonu téléphone na Ibrahima am na ku doon weranteel fii ba jam na ko ba génn na àddina si la ñu jóg ñun ñëpp jubal dem ca kaw tani ba muy fii ci arekaar bi ñun ñëpp buñ demee ñu ngi ko fekk mu tëdd deret ji wër ko ñu ne ki doon xeexal kan la ñu ne kooku daw na ba léegi nag ñun gisuñu ko dégguñu ko ñu ngi koy wër nag kenn gisu ko ah booba léegi nag nit ñaa ngi laajte di laajte fu mu ne ñu ne ñun xamuñu fan la nekk dugal nañu nag ay fotaam ci dëkk bi yëpp ba képp ku ko gis mu présenté ñu ko yoon def liggéeyam ndax reyal nañu koo xam ne yàggu fi sax bi mu fi ñëwee léegi presque ci at ñaari at rek presque lay toll jóge France ñëw wàcc njabootam jabaram ñëw na ak i doomam ñu ngi fii ci kër gi booba ba léegi nag métit woowu ak tiis woowu moom la noo nekkee ndax xam nga ne Ibrahima lu mu mën a mel nit la woon carrément nekk ak noonu amul woon problème moom xeex sax daawu ko def xamul sax problème xeex moom xeex moom xamaluñ ko ko mu mësuñu koo gis mu xeex dëgg rek la wax léegi bi nga xamee ne loolu am na ñun ñu woonu na génn na àddina ñun ñëpp ñu daw ñëw ci kër gi xale yeeg ñëpp ku ne yuuxoo ko ndax bi mu fi jógee ci ay deux heures la nekkoon ci kër gi waxtaan ak ñun génn ne day dem tëngéej ci guddi gi xam naa dafa amut oto mu uññeeku ñëwaat ci kër gi daal dem foofu xam naa foofu la histoire ak moom ba lii am waaw loolu na demee ah ñu ngi koy mittulu nag ndax wakkaam moom fi mu ne ni tàng na jéeb ndax li fi nekk kenn mënu koo wax kenn ñimeetu a génn xaaju guddi saa yoo génnee yaa ngay daw di ñibbi ndax agresseurs yi bari nañ ci dëkk bi fi mu nekk nii lépp bari na fi moo tax ñu fi mu ne nii amatuñ jàmm amatuñ salaam daw rek la def bu guddi jotee ku ne yaa ngay yàkkamtee dem tëri ñuy ñaan nag ñu dimbale ci ah jàppale nu ci ndax xale yu jigéen yaa ngi fi ak góor ñi nga xamante ne bu nu guddee ñoom ñëpp dañuy dew fii mu ne kuy daw il faut nga yor dentité ndax ñu ngi ñu gendarme yaa ngi ci dëkk bi di wër ñëpp ñu ngi leen di wër loolu daal lañ si amoon noonu lañ ko déggee noonu lañ ko gisee ñuy ñaan yàlla képp ku ko gis nanga ñu ko présenté ndax Ibrahima sunu doom la woon fu mitit yem rek ak fu naqar yem rek am nañ ko ndax sunu doom jooju sori woon na ci ñun nañu ñoo ko jur maag yaayam ñoo bokk ndey ak baay maag yaayam a bokk ndey ak baay moo topp ci man ñuy ñaan yàlla nag yal na ko yàlla nit ki ko def yal na ko yàlla nit ci dara joyoonal ci bi waaw lay massa bu baax a baax tant que waajur nga gis insécurité bi amaat ba nga ne léegi jàppante yu ndaw ndawaan sax moroomam loolu moo xew léegi ci dëkk bi moom laa la expliqué nii ne la wakaam fi mu ne tàng na jër lu fi mësoon a aw mi ngi fi am lépp loo xam ne mësoon a am wakaam gi mi ngi am ci wakaam te loolu mësu fi woon a am wakkaam dafa seddoon guy xale yi bëggante jàppante mësul histoire mësu fee am dara mësu fee am fii mu nekk nii wakkaam lu fi mësul woon am rek mu ngi fi am rey na nit def nañ fii nit def nañ fii nii loolu daal ma fa xew léegi. voilà ñu wéyale suñu émission xew-xew ba tey maam ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar maa ngi leen di fay. ñu ngi lay li nga xam ne moom la ñu bokk noo yëgee xew-xew bi dal seen kaw. Ah, ma ma masawaal soxna suñu ndel dal suñu kaw metti rek la def. metti rek xale ya ma woo 5 heures du matin téléphone ma wuyu décroché rek ñu ne ma rey nañu Ibrahima nekk lu mettee méttee metti dal suñu kaw waaye nag dañ koy sante yàlla rek ndax jàmm moom lu ñëw sa kaw rek da nga koy sante yàlla waaye métti na torop métti na ba ci kanamu yàlla waaw. xam nga moom ndeysaan yàlla daf ko bind mu nekk nit koo xam ne dafa buggoon ay mbokkam torop fu mu toll da doon wër ay mbokkam heure bu ne man maa ko yar. man maa ko yar mu nekkoon nit ku baax torop sax ku baax su ma saan ñëw day kafre yaay booy na ngeen def yéen a ngi ci jàmm ñu ne ko ñu ngi ci jàmm mu ne maa ngi dellu wakaam waaw ñu mujj gisee du ñu nuyoonte kafre mu daal den mu ngi dem wakaam ne ko yow bu ñuy waat nii lay demee ñaanuñu ko woon yàlla waaye lu metti la vraiment. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. waaw li ma appel bi may lancé mooy dafa jot ci. nguur gi jël ay responsabilité am waaye dafa jot ci ñu defaraat jikko yi dafa jot ci parents yi yaraat seen njaboot parce que lii am ci àddina bi mën naa ni parent yi am nañ ci part de responsabilité parce que bàyyi sa doom mu mel nu ko neex di def lu ko neex ba a toog ko yor ci biir kër gi su génnee def lu luy dagg sa xol dafa jot nag parent yi seetaat euh, yorin bi yor bi ñu yor njaboot gi defaraat njaboot gi ñu defaraat jikko yi waaye tamit dafa jot nag Sénégal nguur gi tamit wax ci lii parce que tant que rey amul sanction yu tar yu tar ci tegu ci kaw ñiy rey rek ci rey la ñuy dëkk waa vraiment te loolu dafay war a jeex moom pen de mort dafa war a dellu si Sénégal parce que xam nga lii metti na père de famille ki ko rey moom mun na ko jur ndax doomam a ngi ni toog nga jël père de famille jotewu leen dara nga xëy rek rey ko noonu comme ça ay mbokkam ñàkk metti na ba ci kanamu yàlla voilà Pape ñu daal di tëjee nag ak ki nga xamante ne euh, euh, doomam la ñoom ñëw nañu démb bi ñu yégee nouvelle bi jógee fële sa bitim réew ñëw fi nga xamante ne fii nga xam ne mooy Sénégal fi mu ñàkkee waajuram ñu fas yéene ànd ak moom rek tëjee ak moom émission bi bonjour. bonjour. vous appelez comment. Ismaïla. Ismaïla vous êtes le fils de Ibrahima Faye. c'est ça. comment vous avez appelé la nouvelle. C'est ma cousine Marem qui m'a appelé à 3h du matin et qui m'a annoncé que mon père s'était fait poignarder et qu'il est malheureusement décédé. Et voilà. En tant que fils, tu es un fils unique Oui, ça, je suis unique. Vous apprenez que votre père a été tué. Vous avez, euh, com com comment vous, vous l'avez accueilli ben, Ça a été violent, hein, parce que euh, je m'y attendais pas du tout, parce que c'est quelqu'un de, de, brave, qui sans histoire, donc... Euh, la prendre comme ça d'un coup, ça fait bizarre. Et voilà, beaucoup de tristesse. Quel souvenir vous, marquez, vous avez marqué sur votre père euh, bah, C'était quelqu'un de joyeux, débrouillard, très débrouillard et très bon musicien. Vous avez un appel à lancer sur le meurtre de ton père bah, Que la gendarmerie fasse son travail et que, en espérant que l'enquête soit réglée le plus vite possible. Voilà. On vous remercie alors. Merci à vous. Vous au Sénégal depuis quand Depuis avant-hier. Voilà. Vous avez on est à la morgue le ben, Ça a été compliqué, mais bon, ça se voit que celui qui a fait ça, il, a, il s'est sur lui. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame. Euh, Vous êtes venu au Sénégal Oui, je suis venue au Sénégal pour accompagner mon fils quand on a appris la mort brutale et injuste de son père. la nouvelle Je l'ai appris par mon fils à 7 heures du matin. C'était euh, Mariam, un membre de la famille, qui a téléphoné à mon fils pour lui annoncer la terrible nouvelle. Et donc j'ai immédiatement demandé une autorisation spéciale à mes autorités car je travaille pour, euh, je suis enseignante en France et donc je ne peux pas quitter le territoire sans autorisation. Je leur ai expliqué la situation, ils m'ont autorisé à venir ici et j'ai accompagné mon fils immédiatement. Nous avons appris la nouvelle le vendredi matin et on a pris l'avion le vendredi soir. C'est douloureux, Ibrahim était votre mari. Vous On a été mariés presque 7 ans, mais on, a, toujours resté en contact. et donc euh, je l'appréciais beaucoup. C'était quelqu'un de gentil, souriant, il faisait rire tout le monde, il, il parlait avec tout le monde, euh, il dansait pour les mamans, il, jouait de, beaucoup d'instruments de musique, il avait une très belle voix. Et les gens l'appréciaient beaucoup dans le quartier, partout où il est passé. Euh, il a voyagé aussi, il a fait des concerts à l'étranger et Il a toujours été très apprécié. Voilà pourquoi nous sommes extrêmement choqués, car je connais le Sénégal depuis plus de vingt ans. Et euh, je n'ai jamais connu le Sénégal violent comme ça. Et c'est une nouvelle vraiment, euh, nous sommes très choqués et très traumatisés. Hmm. la Oui, bien sûr. Je voudrais que la, la personne qu'on soupçonne euh, soit vite euh, mise hors d'état de nuire, qu'il ne fasse plus de mal à qui que ce soit, que la gendarmerie fasse son travail, une bonne enquête pour déterminer toutes les circonstances de ce terrible meurtre et drame. et qu'ensuite la justice fasse son travail, bien entendu, et le plus rapidement possible pour que mon fils soit apaisé et qu'il sache que son, la mort injuste de son père sera punie. Merci à vous pour m'avoir laissé l'occasion de passer ce message. Merci. ñu jóge France ñoom itam ñëw bi ñu yëgee ab euh, loolu nga xamante ne moo dal si way juróom woowule nga xam ne benn doom rek la amoon muy Ismaïla mi toog ñu ngi koy massaw bu baax a baax a baax di massaw askan wi nga xamante ne fii la ñu xew-xew bi amee fii si Touba mu nekk loo xamante ne lu metti lool la mu jot nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu ay kilifa jëlaat li nga xamante ne moom mooy ku rey ñu teg la loo xamante ne dina métti ba boo ko defee keneen dootu ko ndax comme ni koy faral di waxee Sénégal léegi rey yi na gis ngeen bërki dee moo njaay nga xamante ne moom mooy euh, fële si nu mu tuddati Zac Mbao xale bu jigéen boobu nga xamante ku mu doon àndal moom moo ko rey ak yeneen yoo xamante ne ñu ngi koy faral di gis bi am ngor bërki dem moo njaay lu mu si mënti doon suñu ay doom ñoom la ñuy di leen ñàkk si anam boo xamante léegi Sénégal la dee comme weñ mu nekk nag loo xamante war na fi mën a jeex parce que wakaam moom bu ñuy faral di wax yu mel ni nee daaw fi woon di am surtout nag côté bi nga xamante mooy côté cité war na fi mën a jeex parce bu ñu waxee yu mel nii dafay doon loo xam ne ñaaw la lépp mu ngi xewee fii ci biir Wakam kon xew-xew bi fi la woon Ibrahima Faye moom âgé de 45 ans ñu rey ko bërki démb ci alxamis bi reyin bu doy waar boo xamante ne ñu ne ciseaux la ñu ko jam ñetti jam-jam yoo xamante ni fi mu tëdd fa la ñàkkee bakkanam ñuy massaw ay mbokkam yépp di jaajëfal ki nga xamante moom rakkam la munaas jarbaatam jàpp ci liggéey ba mu jàppandi rendez-vous incha allah mardi lay doonaat beneen xew-xew ci biir 7TV Pape Diop moo nekkoon ci caméra bi leen jaajëfal ba mardi incha allah